Et nous faisons ça avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de passion, en souvenir de tous ces gens qui ont perdu leur vie, qui ont perdu euh, leur santé, qui ont perdu leur travail, dont les foyers ont pu éclater à cause de leur engagement. Au nom de tous ces gens-là, nous n'avons d'autre choix que de réussir. Et je puis garantir je puis rassurer les Sénégalais que s'il plaît à Dieu, nous allons réussir cette mission. En tout cas, vous êtes invités à, continuer également à nous accompagner dans, dans, ce travail, au même titre que tous les autres artistes. Et je terminerai par dire que, effectivement, ces artistes qui sont là ont été triés par rapport à leur engagement à un moment bien précis, mais le message est plus large et s'adresse à tous les artistes du Sénégal, de l'Afrique même, que nous leur tendons la main dans le sens bien compris de l'engagement patriotique, du don de soi pour la patrie, pour qu'ensemble nous puissions enfin euh, changer les choses profondément, qualitativement et structurellement. Merci. la distribution. Ouais. Je pense qu'on va laisser à chaque artiste au moins deux minutes pour une euh, euh, petite prise de parole ou une réaction en tout cas. Euh, donc en tout, en principe, on a 14 artistes, plus les accompagnants. Ça peut nous faire une trentaine de minutes avant de clore le débat. je vais commencer peut-être par Madame C qui était euh, déjà choisi en tout cas pour parler de notre mais on va faire le tour. Euh, xam ko première fois ma yegg ci seenu defe naa clôture meeting bi bi ma ko nuyoo loolu la ma njëkk a wax kon loolu mbégte la di nuyu sama mbokk artiste yépp di wax maa ngi leen di nuyu ma cité ci tuuti rek ku mel ni Mortala moom tamit sama ami d' d'enfant bu borom kër la kilifa maa ngi leen nuyu bu baax Pape Ibrahim sama rakk yi fi toog yëpp yuusu am naa mbégte bu baax tey ñu teew fii ki ma àndal nag moom mooy sama kilifa damay wax en tant que artiste mais nit ku nekk sa borom kër nga am ca vingt ans ñu ngi ànd fu ma mësa dem rek maa ngi moomay ànd bari na lu ñu recevoir ca bu ci nekk ñooy ànd kon tey bu ma premier ministre ma bokk ci artiste yi bokkoon nag ci ñi ko gëm dama ci jàpp tuuti rek bi affaire bi amee fi mu toll sama borom kër mooma wax mu ni ma ñu taal oto bi génn ñu dem lu bari bari sax mu ni ma eh, yaay wax ni sonko da ngeen a dëkk li ma mën a wax ci ay maamam néew na Sénégal ci artiste bu ko mën wax ci ay maamam ci yaayam ñi ko jur ba ci maamam dama ko xam mais woyowu moon foofu mu ne ma nañ demee studio ma def frais di studio yi fay la yow woykat bi sax nga woyal ma sama waa ji di waral man sama woy ci sama borom kër la jógee parce que boobu nga engagé wu diis na donte artiste mais di nga sóoraale mais moom daf ni ma non non nan dem studio ma fay studio fay musicien fay la yow artiste bi sax nga woyal ma parce que foofu rek la ngëm nga moom toll woon donc moo ko defee tamit am ci ay retour yu bëri fii Sénégal bokk naa ci artistes yi ëpp lu ñuy génn def naa 17 pays depuis 2006 maa ngi nekk ci showbiz 17 pays def naa ko dañuy nekk suñu coin di liggéey mais bi ma wooyee ci projet bi retour yu ma ci am man ak yàlla rek noo ko xam ak sama borom kër yenn saa yi ma dem Amérique sax def sama programme ba pare nit woo ma ndax jëmmam li ci mel ni Columbus bëri na ay Boston New Jersey damay dem or sama liggéey mais su ma paree ci sama liggéey juste rek da ngay gis fu nekk la ma nit di invité ñuy daw say ñëw bokk paste foog nga ñëw añ seeg man kaay ma defal la bon départ donc def nañu mbir mais laataay jataay bii mbir moom mi ngi doon fay waaw loolu sant la bu baax sax 17 pays yoo xamante ne waxatuma Sénégal ay sama dama koy yóbbu jor fu ma toll samay passeport yu jeex donc du du doon lu basé wu ci nit mais booy def dañu toog fii rek mu ni ma léegi def te yàlla tax dina fay moom daf ko mës gëm dafa am bés boobu dafa toog ñu toj verre bi mu xëy ni ma du ma tëdd tey ci journée gisuma sama président dem ba gisanteeg moom ñoonteeg moom ma ne ko sa goro la donc loolu ngëm-ngëm la mais bu yooyu yëpp weesoo nag ma ñëw ci li nga xamante ni moom mooy suñu liggéey dafa bëri nguur bu fi jaar te respecté wuñu dëgg-dëgg culture te ñun ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci culture di génn di porter drapeau bi fu nekk dañuy gis suñu yéen yeneen dëkk yi ni ñu gën a avancé ci wàllum culture bari na dama koy wax Mor ma ni ko fekk dañu dem Washington ñu gis defe naa David la di fa joué ñu dem ba teg porte yi ni kenn mënatul dugg mais pourquoi pas ñun Sénégal mënuñu am lii déjà bu ñu wut passe bu ñu wut visa dafay metti dafay metti trop ci artiste yëpp nag mais pour déposer visa ñu jox ko ko ci ni mu waree lu metti la lu metti la dañuy am toujours problème mais loolu yow muy génn dangay xam ni culture Sénégal dafa des lu bari dañu am ay woykat dañu am ay ndaanaan yu mag ci nekk yoo xamante ni dañ leen di xam mais tout le temps dañuy am ay problème yu bëri yoo xamante ne ay gor la ñu di ko mën wax fenn en ñun bëgg nañ la fonk nañ la gis nañ sa taxawaay gis nañ sa njàmbaar mën a fal maire mën a fal ay directeur mën a fal président kooku loolu la digoon nga ko gëm ñu yàkkam dina xam nu mais ñun ñi nga xamante ni bëgg nañ la ci gëm nañ la te gis nañ bu baax sa xeex ak sa bëgg Sénégal ak sa naw sénégalais bi fi mu nekk nii bu ñu nee nii dañu am faiblesse ñun ñi la gëm duñ ko comprendre parce que boo xasee ba